ne fu ko màggal la màggal li bamba woote ne buñ ko wuute digle ci bernde looloo di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk a fi màggal itaali xam na faranse xam na almaaja xam na li moo di màggal waroon na kon tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jóg leen waa ji ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy tuuba fa muy aw ñam ya tedd kay aw ci barke màggal ñi yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak prison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal ku dëggal des na la màggal fonk moo war jàpp moo war ku ko deful war ki woote màggal Bamba moom amul ku dul moom nañ toppi ndigalam te fonk ku màggal fépp fu mbooloo daje di booloo na jéema booloo waxtaane màggal gàcce gënul rey nga nekk fii xëy di dajaloo gàcce gënul rey nga nekk fii xëy ba bis ba doon tey ngay gan ci màggal ganaar gëléem xar nag ak bëy loo am ci jur du doy ci màggal gëléem gi bul yéem nagit jarul yéem bul xeet ganaar ndeem mu sës ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi bernde mooy mbir mi berndeel bu ne jigéen la te bul ne daw la ak sant yàlla bawul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak dawlu ban la rekk di màggal yal na nu màggal màggal gu seddal xolu kadaafal ñi fonk màggal